problème bi mooy Barthélemy fi mu mën a gañe nag mooy Sacré-Cœur Mermoz mooy seefam bi mu moom. Mhm. soxom El Wardini dafa ñëw moom tamit laaj candidature am rien ka pour ruube Barthélemy xëppu ci cere ci suuf. Ah parce que bul fàtte. Soham Sacré-Cœur Mermoz la dëkk. waaw Barth kër cœur Mermoz la dëkk. Mhm. kon ñoom ñaar foofu xëccoo la. waaw te loolu vraiment Barth faw day mën a dëggal boppam gañe foofu. Mhm. sinon Soham da koy lii Soham nag mënul wax euh, dese naa. am kàddu ki politique trop. Ah, mais dafa am. Hmm. encadrement. tey hmm. boo jëlee ku mel ne booy gajaga mii nekk ñaari tali doomi bàcc gajaga ji. waaw seex gajaga la xaw ma. Hmm. boo ko jëlee kooku mën naa wax. am na xaalis ta dafa dafa muus mën a politique. te ni ma ko gisee moom la ah. jox communication ba dara gajaga. sinon kooku am na lu bëri lu mën a yàqal Bart. Ah. Bart loolu na ci bàyyi xel bu baax a baax. Bart benn benn adversaire la am mooy soxom euh, euh, euh, Diouf Sarr sax du kar du adversaire am. Bougane nag non dinaa ci ñëw. soxam mooy adversaire soxam mooy adversaire d'origine. waaw euh, kii euh, nu mu tuddati. Bart Barthélémy. Mm-hmm. bu dee ko mel ne xalifa nag yeex yeexal na. Mm-hmm. mais après ñëw na. Mm-hmm. léegi nag li am solo mooy barte lemin xalifa moo ko tabb xalifa ñim àndal ñëpp maanaam kum ci mës a jël élire la moom daanaka nekk nga maire. tabb na Bart. xalifa nag jël na barte bàyyi fa soxom wolof nag moo ne booy leble. lebalal gone. waaw dëgg la waaw waaw xalifa nag daa mel ne lebal na gone tànn na lebal gone ci lebal maire. dëgg la léegi nag xaw ma ba xam nag maire bi moom itam. bu demalee boppam am na lu mu mën a yàqam déet.